recyclage des objets durs euh, l'exemple des pneus kii dee ci Mélanie wax ci dalal Pape Moussa Ndiaye donc Mélanie dañu leen di bàyyi ngeen feggoo seulement moom Pape Moussa Ndiaye nag ndaw la mën nañ ko wax mi ngi nii toog waaye moom nee lan mooy objectif am mooy maanaam euh, taaral école Sénégal li mel nag euh, tax euh, mu ciy def liggéey bu am solo maanaam rek li nga xamante ne mooy pëna yi ñuy xamante ne dañ koy sandi moom da koy jël daal di ci am liggéey bu mucc ayib Pape Moussa Ndiaye ñu bëggoon a xam rek naka lala la idée boobu noonu dikkee vu que c'est pas évident ndax enseignant nga en même temps aussi. di la jaajëfal ci question bu am solo bi nga ñu posé donc voilà comme ni nga ko waxee ay enseignants lañ en même temps dañuy yëngatu ci wàllu recyclage donc voilà man maa ngi nekk sama neuvième année de service au niveau de la Casamance. Mhm. dans la région de Sédhiou département de Goudomp commune de Tanaf. donc voilà durant la période du Covid 19 la affaire yi dikkee période boobu noonu euh, kenn réewul mbir ni dañoo arrêté woon njàng ak njàngale mi donc après je me nga yeewu suba teel chaque jour doo am loo def bon pourquoi ne pas essayer d'exploiter euh, les déchets plus que man professeur SVT la science naturelle donc euh, c'était évident ma géem a yëngatu ci wàllu xool naka la ñu war a mën a aaree suñu gàncax muy aalam bi mhm, mhm. donc après je me si di donc voilà commencer di expérimenter mhm. déchets yi moo xam déchet lourd la moo xam déchet léger muy mbalit yi nga xamante ni ñun Sénégalais yi dañuy sànni rek ak dajale taal wala dajale dem yóbbu ko si fi ñuy wax euh, dépôt d'ordures yi mais lan nag naka lan lañ si war a mën a indi de telle sorte que déchets yooyu dañ leen di jox une seconde chance de vie mhm. bu ñu defee loolu maanaam ñi ngi leen ñi ngi yaatal suñu dëkkuwaay benn boo jëlee li mel ni pneu mhm. tey pneu ñaari ñaari pexe rek lañ ci am soit dañ koy taal soit nu dajale ko te buñ ko dajalee day xatal Euh, environnement bi buñ ko taalee tamit njeexintal li mooy dañu am problème respiratoire après je me suis dit tiens kon war nañu mën a exploiter li nga xamante ni mooy pneu yi si lañ commencé di ko mhm. exploiter di si def li nga xamante ni ay ay meuble la dañ siy defar ay salon mhm. dañ siy defar ay pouf de salon euh, beneen instant tamit ma ne bon population yi tamit approprié ko donc euh, bu ñu gisee table banc yi ngay gis yëpp recyclage la tey école Sénégal yi boo demee état bi la def si table après da ngay gis fin d'année ñu ne la am nañ problème table banc mais boo xoolee en réalité euh, matière bi nga xamante ni moo war a table bi taxaw mi ngi fa. Mhm. mais souvent kii yu ñooy yàqu quoi dessus yi après je me suis dit ni pour pourquoi du ñu exploiter loolu comme ni ngi teg suñu ay projet mhm. sociétal li nga xamante ni population bi ñu ngi koy euh, accueillir à bras ouverts je me suis dit pour affaire bi mën a gën a dem il faut que ñu yóbbu ko si euh, ndonk daara yi parce que boo nee civisme rek. Mhm. da ngay da ngay dellu. Euh, dem si xale yi nga jàngal leen parce que ñoom ñoo nekk citoyen demain après j'ai installé un mouvement citoyen dénommé Agir pour le développement du Sénégal ADS mm -hmm. il y a plus de 5000 des enseignants des étudiants ak euh, toute couche de la population ñooñu ñooñu ñëpp yéenay lënkaloo di mhm. ànd ci école yi di def euh, liggéey bii nii voilà waaw effectivement boo xoolee mhm. liggéey bi ñu def ci école yi ñun la ak suñu ay élèves ñu ñoo koy defandoo mhm. bu fekkee li ñu war a def la ay comment dirais espace vert la yi nga xam si dañ ko war a mën a def espace public si biir dëkk yi dañ koy def ak askan bi donc yéene boobu lañ ci amoon pour changer xar kanam école Sénégal rawatina ñu toll fi nga xamante ni si ni école Sénégal yi vraiment boo demee bon peut-être dans les grandes villes mm -hmm. on peut dire ni écoles yi nice mais boo demee si village les plus reculés da ngay gis ne xar kanam école yi dafa dafa dafa doy waar te nit ki fu muy yeewoo di fa def neuf mois comme ni ñu koy waxee école c'est une seconde famille nit ki fu muy yeewoo di fa def neuf mois mhm. rawatina comme ni ma la waxee neuf ans laa def mhm. ngay def ko si benn bërëb amul changement amul dara lu nga xamante ni si ni da lay attiré su yàggee bon da nga naan routine lay doon quoi et puis du am dara lu lay attiré rawatina xale élèves yi boo gisee taux de euh, kii bi nu mu tuddee fréquentation école bi day gën a di wàññeeku euh, avec nouvelle technologie yi am yeeg yëpp xale bi buy nekk ak en contact direct ak li nga xamante ni dafay euh, rafetal xar kanamu fi muy yeewoo mhm. day gën am amuru jàng day gën voilà monsieur Ndiaye man dafa am benn laaj ñaar sax ah. mooy benn Euh, maanaam est-ce que pono rek ngay recycler. Hmm. parce que xam nga poubelle mbalit am na yu bare yu ci nekk yoo xam ne kii est-ce que loolu kese la. non comme ni ma ko waxee tout à l'heure comme lan encore dañuy recycler yi nga xamante ni moom mooy carton yi carton yi ñuy sànni si la ñuy defaree table banc yi nga gisoon noonu sànq. Mhm. carton yi ñuy sànni dañ ciy defar ay lal dañ ci ciy euh, carton yi tamit dañ ciy defar ay tableau d'art li mel ni xoolitu gerte. waaw tey gars yi dañuy lekk rek sànni. waaw yooyu yëpp dañ koy jël recycler defar si ay tableau d'art yu rafet. yi nga xamante ne si ne après bon objectif bi du objectif bi du du du jaay ko d' autant plus que ñun moom fonctionnaire de l' état la. Mm-hmm. objectif bi c' juste d'éveiller la conscience de citoyens sénégalais que ni tey li ñuy nekk di ko yàq di tilimal war nañ ko mën a jël. pour mën a defar suñu environnement mu gën a rafet. ñu dem ci formation bi. Mm-hmm. Euh, yaa ngi koy wax c'est pour. maanaam éveiller ak tamit sensibiliser la population euh, xale yi élèves yi da nga koy jàngal ak euh, waa population da nga koy jàngal non effectivement effectivement dañ leen di dañ leen di jël di leen occuper euh, durant les mooy mercredi soir wala lundi soir ou bien samedi soir wala vendredi soir yi nga xam si ñoom du ñu am cours donc au lieu que ñuy nekk di taxawaalu si mbedd beeg yooyu dañ leen di wax suñu bëggee ñu def cours ñu jàngal leen naka la ñuy recycler donc voilà beneen bi mooy population yi tamit comme beneen bu gën a am solo bi nga xamante ni waxuñu ko kenn réerewul bi ni état du Sénégal dafa génne woon ñaari projet de loi yi nga xamante ni si ne mooy aaye euh, mhm. mbuus mhm. donc voilà ñu am problème mu appliqué que ñun tamit ñu toog xalaat ne lan lu ñu war a mën a def parce que projet de loi nga voté ko yomb na mhm. mais lu koy remplacer moo indi problème si askan bi après toujours ñuy exploité ñu gis ne euh, kayitu ciment yi dañ koy sànni mooy lay saaku meew yu mag yi këyit la quoi mhm. ñu ni pourquoi pas duñ ko exploiter parce que boo ñëwee Dakar boo demee jënd si les brioches dorées euh, fait dañ lay jox ay sachet mhm. après si loolu moo ñu inspiré après ñu jël ces sac sac de ciment là mhm. di ko transformer en sachet loolu tamit bi ñu ko commencé def ñu gis ne lu am solo la askan parce que dañ koy def di ko mayee si marché yi initier si population bi loolu tey tey jamono bi ñu toll ñu ngi ñuy woo fu nekk pour ñu former ay jigéen yi nga mhm. xamante ni dinañ si mën a daan seen doole pour am sa astu donc formation boobu noonu yëpp ñu koy def man personnellement li may wax rek saa man dama ko yàlla suñu borom moom ma ko jox donc lu may gën a am plaisir mooy di ko partager askanu Sénégal. Mhm. Euh, pour ñi nga xamante ni peut-être seen loxo jotu seen ginnaaw man si mën a euh, am dara. beneen bi tamit di nga yaxanal sa poos parce que ñaari avantage moo si nekk tey pën pën bi exemple. Mhm. ñii gor garab yu mag yi si àll bi. ñooñu xam loolu day am impact ci suñu dundin. Mhm. day day wuyu rek ci réchauffement climatique léegi benn nga ni nañu utiliser pneu yi bu ñu utiliser pneu yi dootuñu nekk di gor garab yu mag yi beneen bi mooy bu ñu goratulee garab bu mag yi day gën a baax suñu si suñu dundin. Mm-hmm. léegi euh, matière bi ngay jël tey salon yu ñu ciy defar ak ki nga xamante ni day jël quatre cent mille benn néew di doole amul. mais condition yu ñu dundee Sénégal rivalité la quoi je veux mm-hmm. kii day am lii kii bëgg am lii mais boo sa loxo jotu sa ginnaaw nga jënd meuble yu mel nii danga nga sa poche aussi. ba pare de effect euh, durée de. durée de vie par exemple nee nga carton da ngeen koy jël fabriquer ci ay affaire est-ce loolu dina mën a yàgg comme yeneen matières yi. effectivement effectivement ñun lépp lu ñuy defar rek loolu lañ ci njëkk séntu. Mm-hmm. bu ñu bu ñu lu ñuy defar lu nekk rek qualité ba la ñuy njëkk dëgëraay bi. ak mm-hmm. dure de vie bi la ñuy njëkk testé. bu loolu jaalee nag si la ñuy indi aspect esthétique bi. pour rafetal ko mm-hmm. mais lu ñuy def lu njëkk mooy dëgër na am dëgëru. loolu la ñuy njëkk ju rafet la mhm. mais bi nga ko defee fii nii il paraît que école su ma juumul effectivement bi nga amee euh, idée def yu mel nii te bi nga koy def sax pour ñenn ñi nga xam ne mooy fi nga xam ne fa la ñuy jàngale ay ndaw ñu mën a gën a mën a nekk ci euh, lu lu lu rafet ci seen i bët wala sax foo xam ne dañuy confortable mhm. gis autorité yi nga xam ne gis nañu leen wala est-ce que bi nga amee idée bi dem nga ci autorité yi wax ak ñoom ci ci ci mbir mi ngir seen jàppandal wala sax ñu gën la mën a puus mbir mi jëm kanam bon euh, question yu am solo la donc dama ci indi ñaari réponse quoi mm. parce que bi ñuy soog a door comme ni mu ko waxee période Covid la woon donc am na yeneen idée initiative yi ñuy jotoon a teg balaa ñuy agsi fii mm. donc euh, am na autorités yi nga xamante ni c'est sûr que da nga leen da ngay dem ci ñoom nga laaj leen comme zone bi ñu nekk Casamance mm. toute autorité confondue autorité coutumière religieuse yëpp dañuy dem waxtaan ak ñoom si lu ñu nar a def bu ñu joxee ndigal bi ñu dem def ko donc ci kaw loolu amoon nañu ci avalu IF bu Goudomp am ci avalu IA bu Sédhiou am ci avalu tamit sous-préfet bu euh, bu arrondissement de Simbandi Brassou beneen bi mooy maire Tanaff ba fa nekkoon période boobu amoon nañu avalam soo xoolee si wàllu autorité am nañ seen ay aval. Mm-hmm. mais benn autorité la ñu gis ni mi ngi si doon jàppale avant sax muy doon maire ren. si mm-hmm. élection yi jàll muy nekk euh, monsieur Léonce Zalé. nekk daaju ministère de la culture avant moom muy nekk maire Tanaaf mi ngi si doon jàppale parce que moom bi mu gisee projet bi daf ñu woo orienté ñu jàppale ñu ba ñu am catalogue pour man permettre ñu koy présenter aux autorités di ko présenter partout au Sénégal mhm. tey ba mu ñëw jur lii di ko remercier au passage leneen li mooy euh, bi ñu defaree trente tableaux tableaux yi tamit yàqu dañ koy defar comprendre bi suñu problème bi suñu lycée amee problème mu trente tableau yi fa nekk ba élèves yi dem grève mm-hmm. dama porté woon volontaire defal ko gratuitement après bi ñu defee loolu ba pare suñu secrétaire général SAEMS monsieur Saourou seen bi génn mm-hmm. woo ministre bi expliqué le ministre à l'époque sortant monsieur Mamadou Talla woo na ma téléphone waxtaan ak man recevoir na ma aussi amoon na yéene pour ñu gën a yaatal li ñuy def. Mm-hmm. mais yàlla suñu borom dafa def bon après ñu remplacer ko. instant yi ñaan yàlla suñu borom affaire yi dem ba. Euh, Cheikh Oumar ann jot si recevoir ñu ñu yaatal ko parce que tey bu fekkoon ne man li may def intéressé wul Sénégalais donc duñ ci nekk di si son mhm. population bi ñoo ko bëggal seen bopp je pense que Mélanie mi moo invité am na lu mu ci xam donc voilà tey li suñu yéene mooy yaatal ko si école Sénégal yëpp mhm. donc loolu mooy yéene bi à vrai tey ji euh, comme su ma la déggee ça veut dire que pour l' li ngay def nii yëpp maanaam décor yi nga am ci école yi recyclage ak yooyu tu pars de tes propres moyens amoo benn aide financière ba nga xamante ne jóge na feneen ak feneen ñëw jàpp si lii. non non no du tout aide financière bi donc ñun dañu am benn slogan. Mhm. dafa am li ñuy duppee agir sans attendre ñun tey par exemple idée bi c' est bien bo mais naka ngay def ba nit ñi participer ñun loolu loolu mooy suñu combat. Mhm. nouvelle nouveau type nouveau type de citoyenneté la ñuy la ñuy la ñuy prôné tey quartier bi par exemple euh, grand bi c'est un journaliste man enseignant la keneen nekk banquier war nañu mën a jël si suñu temps bu ñuy bu ñu xamante ni defuñu ko suñu bërëbu liggéeykaay xool naka la ñu war a mën a def toog waxtaan ba nga xamante bu ñu ko tegee suñu suñu suñu quartier. Mhm. changer xar kanamu quartier bi. donc agir sans attendre boobu la ñu fexe ba population bi adopté ko par exemple école bii nii tey école xuma centre la dans la commune de Richard Toll. donc dama quitté Casamance dem vacances ma ne bon mooy programme mu phase vacances au service de l' école sénégalaise. donc bi ma demee comme def naa ko 9 ans si àll bi yoon la ma dellu fu ma dëkk te fu ma koy may mooy sama temps libre bi ma amee temps libre si vacances ma dem école bi ñuy wax xuma centre. léegi xuma centre bi mu fa demee fekk fa ñi nga xamante ni mooy CIDK. collectif des intellectuels de xuma pour le développement de xuma. ak génération monsieur Niang monsieur Niang moomu tey moom mooy directeur école bi te moo nekkoon sama maître CM2 moo ma ni dama koy wane li mu mën naa ko def tamit si sama dëkk. après si laa ko expérimenté affaire bi jàll. mais am mooy idéologie bi mooy. Mhm. dañ ne par exemple dañuy defar pneu moom kenn du ko jaay. pneu bu yàqu. waaw moo gën foog naa mooy matière bu gën a bëri Sénégal. boo defee le constat même a Dakar ak fépp. donc loolu la ñuy jël ñu ne léegi lii lañ ciy defar ay banc écologique banc écologique bi coût bi lii la peinture la ñu soxla ciment la ñu soxla. Mhm. carrocage la ñu soxla. léegi ñu ku ne lu waaye am indil. Mhm. léegi bu ñu commencé liggéey bi nit ñi li leen di attirer mooy affaire bi. au début ni mu nekkee woon pneu nga koy ñàkkee bàyyee xel. Mhm. ñu ñëw defar ko mu rafet nga gis ko. Mhm. ñeneen ñi nag si la ñuy am envie. Mhm. di participer donc voilà en loolu moom mooy nekk suñu système bi ñu jël. pour euh, pour euh, kii bi nu mu tudd pour réaliser mhm. le projet la directeur école yi tamit dañuy participer élèves yi tamit bu nekkee année scolaire mhm. élèves yi dañuy dugg salle de classe ku am vingt cinq francs joxe ku am cinquante francs joxe donc mhm. esprit participatif ak esprit de citoyenneté lañ ci lañuy lañuy la ñuy véhiculer comme message ndax da ndax da ngay jànkonteel ay jafe-jafe waaw dañuy jànkonte ak ay jafe-jafe donc jafe-jafe moom du ñàkk comme ni nga ko xamee rek Sénégal moo nekk dëkk bi nga xamante ni si nii Euh, lu ci ëpp ci quatre-vingt-dix-neuf pour cent population bi yëpp esprit pour décourager jeunesse bi la quoi. à vrai mm-hmm. dire. parce que da ngay porter euh, projet bu mel nii étant jàngalekat. nit ñi gis la ngay yëngatu si pono yooyu ñu ne looy doy lii yaa ngi jàngale yaa ngi am sa salaire xam nga yow bon intérieurement sa objectif final yaa nga koy gis en tant que artiste ko hmm. yaa ngi koy gis en tant que euh, un pour le Sénégal mais ñi lay wër en général incompris lañ lay jàppee quoi ñoom duñ la comprendre. Hmm. donc jafe-jafe boobu lañ njëkkoon am. damay ñëw sax ma ni mën naa def benn affaire nii bon ñu décourager loola mais man bon toujours abnégation bi ma siy am mooy suba lu muy nar a beneen jafe-jafe bi mooy matériel yi ñuy utiliser lii ngay gis ñu koy defar yëpp on le fait avec des techniques yi nga xamante si ni manuel la hmm. donc da doon gën a rafet gën a taaru gën a am punch hmm. nga xamante ni bu ñu amoon le vrai matériel bu ñu koy utiliser hmm. euh, yu mel ne ay plateau yëpp bon xam na après si loolu la ñuy ñëw euh, expérimenté géem a defar ay plateau yi nga xamante ni local la comme dañ ne consommation locale proposer que télé yi nekk Sénégal d' autant plus que ñu ngi dem si plateau yëpp pour gars yi gën a bàyyi xel ne projet bi. Mhm. mën na jur li nga xamante ni suba day day wees suñu njort te boo demee Europe occidentaux yi lu ñu gën a jox cër actuellement c' est le recyclage. est-ce hmm. que tey jii yow mii. ñu hmm. ne woon deux plateaux trois plateaux ak nii léegi nag euh, kii ko defar ko. consommer euh, euh, local est-ce que est-ce que est-ce que di nga ko mën a def nii actuellement. non actuellement fi ñu tool nii nii nii kay bu ñu indiloon matériel bi ma defar ko loolu. matériel bi lan ak lan la matériel bi ay pneu la ñuy soxla. bu mhm. fekkee plateau la nii dañuy utiliser peut-être dañ ciy. est-ce que ak pneu rek mën nga def benn plateau. non du doon ak pneu kese. xam nga ah. tey lépp lu nekk li ngay créer lu nekk rek. Mhm. dafa am yu muy laaj. comprendre bu dee banc écologique la dafa am lu mu laaj bu dee plateau télévisé la comme yéen ni ngeen ko amee mu kawe nii. Mhm. c'est sûr que dinañ utiliser ay tiberons fer. wala ñu utiliser de des planches pën parce que dañuy def de telle sorte que yow fi nga toog ni pën lay doon fee pën fee pën fee pën mais dafa am lu ñu lu leen di relier. Mm-hmm. d'accord ça waaw non c'est que dama gis c'est que dama gis. am na ñoo xam ne dañuy vanter wu naan. Mm-hmm. Euh, li ma defar nii yëpp mm-hmm. recyclage la. ma ci leneen amu ci amul weñ mm-hmm. amul bant lépp recyclage la pono euh, euh, bouteille nangam loolu mm-hmm. waaw mais mais man weñ bi may utiliser recyclage la weñ bu ñu sànni laay jël ah, denk ah, tamit denk bu ñu sànni laay jël lépp lu may lépp lu may liggéey amul leen li nga xamante ni day bees ma ñëw utiliser mm-hmm. euh, man li ma bëggoon laaj mooy yow Pape Moussa Ndiaye yow enseignant nga avant tout tey jii nii euh, comment nan ngay def nan ngay aménager woo pour euh, tey jii def euh, ce métier d'artiste en même temps nekkaale enseignant parce que c'est pas don c'est pas donné aussi c'est mmh, pas facile parce que enseignement enseignant rek ñëpp xam nañ dafa métti ba bëgg a dee tu te donnes corps et âme déjà xel gi day dem encore aussi ici artiste bi ñëw encore tu te donnes aussi physiquement naka ngay aménager woo pour mën a corréler ñaar yi donc comme ni nga ko waxee rek yàlla suñu borom moom maanaam mën nga tàmbalee si benn métier leneen ñëw juddu si. Mhm. man bon nii nii nii samay ami d'enfance suñu waa kër ñëpp affaire da leen di jaaxal mosuma fooyee peinture mosuma fooyee affaire artiste. Mhm. donc nee naa la soo jàng menuiserie aussi. déedéet euh, bi moo réveillé affaire yi si man. Mhm. comme ni mu la ko mën a wax te Covid 19 bu ñu la waxee doo jàngalee ti tu as le temps libre à la maison. donc période boobu ñu aayee jàngale yëpp si yooyu laa doon activé wu. benn instant nag bi jàngale bi reprendre. kon par devoir obli euh, par devoir euh, obligation professionnelle. dafa mm-hmm. am donc li ñu fa yóbbu mooy jàngale donc loolu moom kenn du ko euh, taqaleeg dara. Mm-hmm. période boobu noonu yëpp dañuy jàngale bu ñu amee le temps le temps soir yi mu libre. Mm-hmm. ñun jot boobu rek la ñu am à part école si loolu la ñuy yëngatu. amuñu beneen activité bu dul loolu école wala affaire artiste. bi ñuy bi ñuy def donc te population bi sax moo ñu forcé moo artiste bi. c'est vrai ah, dañ naan li ngay def affaire artiste ba affaire bi dem ba law. mais suñu devoir euh, professionnel moom. moom loolu kenn du jël lenn di ko teg ci kawam peut-être problème beneen jafe-jafe bi may ñëw di am ni bi ñu demee école yi bi ba pare am na guddi yu ñu toll plus de cinquante plus de cinquante école ay lycée mhm. ay CM. ak ay école primaire yi nga xam si dañuy solliciter pour ñu ñëw def lu mel na lu mel noonu si seen i gox. Mhm, beneen beneen por loolu problème lay ñëw doon si ñun. Mhm. donc tey lu ñuy ñaan bon projet bi ministre de l' éducation nationale approprié ko jël xam ne si domaine am la bokk géem ko yaatal décharger suñu mënee mu décharger ñu. Mhm. parce que lu ñu gën a bëgg tey mooy jàngale. mais tey yàlla suñu borom bu indee leneen li nga xam si day day day indi njeexital si day jëriñ askan bi moom tey war na ñu mën a xool naka la ñuy aménager de telle sorte que dañeen mën a allier ñaar yëpp parce que Sénégal école yi mu ngi souffrir yéen xam ngeen si dara peut-être bon mën ngeen si bañ a xam dara parce que Dakar ngeen nekk mhm. projet bi lu si gën a am solo mooy da ngay dem au fin fond du Sénégal village yu gën a reculé mhm. fekk école ya fa nekk yi ay la yoo xam ne xale yi mooy lool daal. macha mhm. mhm. allah peut-être pour terminer. waaw ouais, pour terminer mooy rek euh, est-ce que da ngeen di def ay appel à des ONG. Mhm. comme ça ñu gën a mën a ñëw jàppe seen liggéey beeg yooyu. waaw appel bi moom ñëpp lañ koy lancé dañ koy lancé ONG yi lancé que lancé que président de la République du Sénégal lancé que ñëpp képp kuy sénégalais nekk patriote. nekk sénégalais quoi laa bëgg a wax à vrai dire opposition pouvoir ñëpp. rawatina na njiitu réew mi. parce que lépp lu fi yëngul tamit tey moom mooy responsable mm. ak suñu ministre tutel yi projet bi ni mu yaatoo dafa laal ministre de l'environnement laal ministre de l'éducation nationale laal ministre de l'urbanisme mm. laal ministre bon de la formation professionnelle parce que on peut en former plusieurs jeunes mm. yi nga xamante ni tey taux de chômage bi kenn xamul mm-hmm. lu mu lu mu toll suñu principal combat tamit mooy insérer que sur les nouveaux métiers pour former les mu nekkoon lu am solo ah monsieur. monsieur monsieur Ndiaye hmm, monsieur Pape Moussa Ndiaye Pape Moussa Ndiaye. ko jaajëfal bu baax vraiment ñu di ko jaajëfal di ko rafetlu vraiment di rafetlu présence am. mu ngi nii yéen ñii nag kel euh, bu ñu gisee ay ndaw di yëngu ci yi hmm. dañoo jara encourager euh, jara gën a jox doole parce que li ñuy def non seulement dafay njëriñ askan wi waaye hmm. tamit environnement bi tamit gis na ci njëriñam. ñu bàyyi ko mu tàggatoo moom Pape Moussa. waaw waaw di leen jaajëfal di am mbégte ak contentement rêve la woon bokk ak euh, plateau grand Cheikh Tidiane. ay eh, rêve réalisé waaw loolu moom suñu mbégte la woon quoi. donc euh, ñu ngi jaajëfal euh, mu nekk télévision bu am solo si réew mi gis nañ liggéey bi nu mu toll. yal na yàlla suñu.